CDCS di ab kuréel bu ñu samp bu bees li ko tax a jóg moom moo di xeexal àq ak yelleefu consommateurs yi ci jumtuwaay yi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo fii ci senegal seen ku mbébét moom moo di fexe ba xamale consommateurs yi seen àq ak seen yelleef jëmale ko ci service yi nga xamante ni ñu ngi leen koy jox. Sénégalais yi dañ leen bàyyee seen bopp gisuñu. Euh, benn association boo xam ni taxawal na fi réellement sénégalais yi donc ci lañ ne pour pourquoi pas duñu créer li tudd collectif pour la défense des consommateurs du Sénégal maanaam ñi nga xam ne ñoo fi nekkal sénégalais yi di leen xeexal seeni problème di leen nekkal ci mbedd bi nekkal leen ci naaj bi jooy leen seen problème réglé leen ko du ñu leen ci laaj dërëm. ñu fas yéene amal ay waxtaan jëmale ko ci diggante consommateurs yeeg fournisseurs yi. li ñu xam xamle rek moom moo di bu fekkee li ni mel antuwul dàquñu bay amal ay toogaanu ñaxtu. problème boo xam mën nañ ko régler ci waxtaan ci njekk comme ni ñu koy waxee parce que ci niveau boobu foofu lañ toll ci njekk ñu waxtaan ko ci njekk su fekkee nag dafa laaj ñu dem ci beneen niveau boo xam ni ay manifestation la ay doxu ñaxtu wala taq ay morceau yu xonq wala xool beneen façon boo xam ni. dinañ wane suñu mer ci ñi nga xam ne ñoom la sénégalais yi mere dinañ ko def. lu jëm ci wàllu violence yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko jamono jii waa CDCS di ko ñaawlu tey xam le ni li ni mel amul benn njëriñ. violence bi nga xam ne gis nañ ko c'est-à-dire yàq-yàq bi toj yi laq yi ak yeneen yoo xam ne gis nañ ko ay bus yu ñuy taal yooyu yëpp ñun lu ñuy méttitu la te duñ ko encourager te duñu wax kenn na jëm ci côté boobu parce que ñun ñii ñëpp fi toog ay ndaw lañ de. waaye ay responsable collectif pour la défense des consommateurs juddu na CDCS am mbébét ngir gëna a ñoŋal dundinu askan wi rawatina lu jëm ci wàllu consommation.